dimanche bi sénégalais yi ñu génn dem voter ñu war a tànn cinquième président de la république ci ñun gëm sa bopp liggéey nañu liggéey bu mucc ayib fépp fu nekk gox goxaan ci Sénégal teg nañu fa suñu tànk yéene Bougane ak waa gëm sa bopp ci nu ñu sopparñee Sénégal defar ko mësta nekk dut ci benn Sénégalais loolu moo tax bi ñu ñu génnee ci élection yi ñu jàpp ne Sénégal moo nekk ci suñu kaw ay ambition lu yàq Sénégal du ñu ci bokk mais xam leen ne dañu amorcer tournant bu décisif fi ñu jëm c'est historique bu ñu nangu kenn yàq suñu réew bu ñu nangu kenn saraxe Sénégal bu ñu nangu kenn sax-saxe Sénégal réew mi ñun ñoo ko war a defar bu defar waree am ñun sénégalais yi ñoo koy defaral suñu bopp je voudrais d'abord attirer votre attention que Amna bari ak lu ñuy lu ci ñi pétrole diviser nañu camp politique bi ñaari camp dañu Qatar ak les Russes ak ñi nga xamné dañu les les Français et les Américains dara lu gaz dina attirer sen attention pour que kenn ku nek ci yéen surtout les militants de gëm sa bopp ngeen jël sen responsabilité man gan élection dimanche yi nga xamné fa lañu jëm ma ngi libéré bép militant bu gëm sa bopp fu nek, nekk fu la neex candidat bi gën bi gëna dal sa xel demal nga voter ko suñu taxaway nak ci opposition suñu taxaway ci xeex li fi nekk mësta soppiku bu ñu demee deuxième tour incha allah danañu gën a dajewaat xool kan moo gën ci programme yi ñu am ak kan moo gën ci Sénégal jërë ngeen